الله la الله كثيرا لعلكم تفلحون kon kàddu yi du gudd kàddu yi nuyoo rek la yu bàyyi ko ci ki fi nekkal Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoonu muru suñu borom may ko kattan ak wér lépp mu àggale ko ni mu ko bëggee ndax xelum jullit yëpp dal ci moom xelum taalib yëpp dal ci moom kon ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalib yëpp di ñu di nuyu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke al mi nga xam ne eh, ñëpp xam na ni mu ndax sëtu Serigne Touba la ak Serigne Dame doo Lo taxawaayam tam li ko fi Serigne bi séentoon ba indi ko fi ñëpp xam nañ ne matal na ko kon na ko yàlla yàgg taxawe ñëpp yàgg topp ci ginnaawam. di sëriñ Serigne ci Fay mi nga xam ne moo yore kàddu sëriñ bi di fi jëwriñam ci ndakaaru ak mboolem di ko wër lépp moo itam ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax fàttali rek lay doon ndax liggéey bi bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaayam xam ci yitteem xam ci pëstéefam ba yàlla def suñu borom def li ci ëppoon àgg kon moom itam ñu ngi koy sant di gërëm taalibe yi topp ci ginnaawam wax ji nag du gudd ndax dañuy sant bokk julli yi rek ak bokk taalibe yi rawatina fii àdduna toll nii ñëpp maase xam wopp ji nga xam ne suñu borom wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di mbas moo xam ne yàlla ko fi yàlla teggi ndax ñëpp xam nañ ne li muy gàllankoor kon itam bu yàlla defee ñu dem ba mu demeewaat nii ba ak woy fal am ci ñëpp gën a góor góorgóorlu ci sàmmoon teg li nga xam ne moo leen de aar di aar ñëpp ndax jàngoro kum ne ci yow war ngaa fexe ba du bu ko wàll sa morom kum néew ci yow itam war ngaa fexe ba di ko wattandi ko loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalib yi ndax jàkka ji wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan jullit yëpp nag maase giñ maase giñ maase ci xam ne jàkk ji néegub yàlla lépp lu ñu askanale Serigne Touba jullit yëpp ko bokk ndax sëriñ bi noonu la doon dund la doon eh, lii nag firnde li ci ne wuyu si ko ko ñëpp wuyu si ci loolu xam ne ji xam ne néegub yàlla ba tax mënoo fi xàmmee murit ak tijaan ak xaadir ak laayeen ak yeneen tarixe ci des yëpp ci Sénégal ak ñi nga xam ne sax ay jullit lañ te askan wi ci tarixa loolu lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaane na ko ne te rasulullahi indi ko al muminu axooxul axooxul muslim innama mu'minun ixwatun fa aslihu bayna axawaykum lim santaane it ci jullit yëpp maas ci àndoo nekk benn lii bokk ci li koy firndeel kon nag ñu jeexale foofu kàddu yi jox sëriñ Mbacke Faye yóbbante bi nga xam ne war na ko jottali ci bokk taalibe yi jëme ko ci bokk jullit yi mu leeral ko ni mu ko war a waxee ginnaaw boo xam ne am na ci ndigal lu bàyyi ko ci ki fi nekk Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér mu jotli ko bokk taal bi ak bokk jëri ñëpp déggandoo ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi irrahmaani irrahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ bi bu baax di yeesal suñu taalibe ci sëriñ Tuubaa di ko jaarale ci kii ko fi nekkal muy Cheikh Muhammadul Muntaqa ibnu cheikh mohamadul bachir tey ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam may ko kàttan ba liggéey bi mu liggéeyal lislaam liggéeyal ko maamam mu def ko nim mu ko bëggee te mu ànd te nu ànd kook moom di nuyu cheikh mohamadul bachir ibnu cheikh abdul xaadir mbakke ibnu sëriñ tuba mi nga xam ni moo yor kàddoom tey yor kàddu gi njabootug sëriñ Tuubaa gépp di jël suñu ziyaara ak suñu nuyoo di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci njabootug sëriñ Tuubaa gépp am ratib Cheikh Mahamadul Bachir ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak moom ci liggéey bi fii ci Masalikul naan di nuyu mbokk taalibe yépp di nuyu jullit yépp di leen sant ci turu sëriñ bi di leen sant ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ni moo ñu indil cantuk sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ni na mu ko waxee ca njaalbeen ba tey ñoo ko ànd ànd ko àndin wu rafet ba tey jii li nekk sagub lislaam bi yëpp nu mu leen ko waxe woon nit ci yoonam wala mujj nga xam ne ñëwoon na fi ci weer yee ñu génn doon leen xamal tamit ni liggéey bi am na beneen fànnu liggéey boo xam ne bii mooy li nga xam ni mooy mottali programme bi ñu waroon a def fii ci Masaalikul Jinaan muy institut islamique bu rëy bii nga ñu fi war a def defal ko sëriñ Touba ak li nga xam ni moo desoon ci liggéey bi. muy loo xam ne lii booba ba léegi ñoo ngi nekk ci ay waajtaay ci maanaam ay di def li ñuy wax ay étude ay pré étude yoo xam ni bu ñu noppee ba jëbal lépp sëriñ bi rek bu neexee yàlla ñu daal di koy tàmbali ndax moo nekkoon programme bi nga xam ne moo doon programme global bi nga xam ne mooy institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni jàkka ji benn la ci li nga xam ne lii mooy programme yi di tamit xam ni dañoo nekk ci waajtaay di séentu màggal gi nga xam ni moom lañuy ñuy at mu nekk ci ndigalu Serigne Touba yi nga xam ni ci première semaine mois de octobre lay doon màggal googu nag xamoon ngeen ni tamit da daan am ay waajtaay yoo xam ni dañ ko daan faral di def mu doon ay colloque wala mu doon ay symposium wala mu doon ay ay journée culturelle yoo xam ni dañ ko daan waajal màggal gi fii ci ndakaaru di ko ko séenoo ba pare doo ko dem màggali Touba mu daje nag ren boo koy seet ni ko fi sëriñ bi waxee bi mu fi ñëwee ci ubbite gi ci mois de septembre le 27 septembre 2019 nga moog màggal gi daanaka liy dox seen diggante xam naa ni ci fukki fan lay doon te comme daf ñu joxoon ndigal ni at mu ne ñuy prépare ngir waajal màggal gi nga xam ni mooy màggaluk Serigne Touba gi ñu def programme spécial ci bu weer wi teroo rek di benn fan ci weeru safar ñu tàmbali di ko waajal màggalu Touba ci manifestation culturelle yu mel noonu ba ba ñuy dem Touba ren nag mu nara a coïncider ci ndigalu sëriñ bi ak fii ci ndakaaru ay xew-xew yoo xam ni ñu bëgg a boole xew-xew yooyu yëpp comme nañ leen ko diggee woon ba ñuy ubbi jumaa ji mu nekk semaine culturelle lu ndakaaru boo xam ni at mu ne dañ koy waajal mu nekk semaine culturelle ba ba ñuy dem di màggali Touba. Euh, at mii nag ku ne xam na ni màggalug Touba ci première dizaine décatu mois de d'octobre lay doon sëriñ bi jox ñu ndigal ni nañ fi def semaine culturelle bu yaato yaatoo yaatoo ba nga xam ni xew-xew yi am biir ndakaar muy ñaari guddi Ndakaaru yi te dañ ko daan màggal di tamit julli gi nga xam ne gii moom la julli woon ci géej gi ñu di ko màggal ak li nga xam ni mooy 27 septembre nekk date boo xam ne bii date anniversaire ubbitik jumaay Masalikul Jinaan la ñu bëgg a boole xew-xew yooyu yëpp def ko ci benn semaine boo xam ne bii day doon semaine culturel boo xam ne bu mag boo xam ne dañ koy waajal la Tuuba buñ ko defee ba le 27 le 28 ñu doog a nag daal di waaj doog dem Tuuba mu nekk xew-xew boo xam ne bii xew-xew bu rëy rëy rëy doon. nga xam ni dañoo bëgg la nga xam ne lii amoon nañ ko ci ouverture bi nga xam ni moo doon ouverture Masalikul Jinaan bi ci ubbite gi daanaka na mu meloon ci mel na ab taaru ak na mu meloon ak pas-pas bi nga xam ne moom la taalibe yi amoon jullit yi amoon ko ñu daje fi def semaine culturelle boo xam ne bii dina am ay exposition yu mag a mag a mag dina am tamit ay conférence yu mag comme niñ ko defee woon bi ñuy def ouverture bi dina am tamit ay ay ay ay waxtaan yoo xam ne yi dañ koy waxtaan jëme ko ci li nga xam ni mooy yoon wi jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy diine ji jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy situation yi nga xam ni moo nekk dans le monde comme niñ koy faral di def rek nga xam ni dañ koy waajal nag mu nekk waajtaay woo xam ni waa Ndakaaru gépp ak li ko wër dañuy fiy ànd màggal ko def ko muy julli géej gi def ci tamit ñaari guddi Ndakaar yi ak ubbite gi nga xam ni gi mooy ubbiteg Masaalikul Jinaan loolu daal mooy ndigal li nga xam ni tax tukkee woon na ci sëriñ bi tàbbi fii ci Cheikh Mouhamadul Bachir mu ñëw indil ñu ko moo taxoon mu ne woon dinañu baaxe ñëw fii tey ci àjjuma ji julleeg ñun indil ñu ñaanuk sëriñ bi soññ tamit ci li nga xam ne lii mooy liggéey bi soññ ci li nga xam ne lii mooy àndandoo geeg bendandoo gi te xam ni ñun taalibey murit li ñu war mooy toog di déglu ndigal bu ndigal ñëwee rek ñu jëfe ko leneen waruñu lu dul déglu ndigal ndigal li mu jóge ci ka ko war a joxe muy Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mourtada Mourtada Muntaxa bu ñu ko joxee mu wàcc ci moom rot si ci ñun ñu daal di koy jëfee def ko ni nga xam ne bii moom mooy li ñu war mooy jëfe ko ni ko Serigne bi bëggee bu ñu ko defee ni ko Serigne bi bëggee daal di am li nga xam ne lii moom la ku nekk bëgg cib taalibe muy ngërëmul sëriñ bi. sëriñ bi nag waa ndakaaru yii wax dëgg yàlla ameel nañ leen cant ameel naa leen ngërëm ma di la ko seedeel yow mi nga xam ni yaa ma teg ci seen ci seen kanam lépp loo xam ne jóge na fi yow jóge ci sëriñ bi bu ma leen ko waxee dañuy daal di ànd ak man def ko noo xam ne nii dina ëpp sama njor lii nga xam ne tamit mooy ndigal lu yees tàbbi fii eh, na nga ci rafet njort te nga ni sëriñ bi dinañ ko def ni mu ko bëggee nañu ñaanal ba sa borom dimbali ñu kàttanal ñu ba nga xam ne bii buñ ca eggee ñëpp dinañ maase xam ni la nga xam ne moo doon ndigal lu jóge ci sëriñ bi matale nañ ko ndax ñu mën a am ngërëmam yow nag ñoo ngi lay def beral sa cantu bopp cant goo xam ne gii ñun ñëpp ñoo la ko yoreel kuy taalibi murid rek yoroon na la cant gi ndaxte ni nga nekkee ci yoon wi nekke tànku sëriñ bi nekk làmmiñam nekki bëtam day loo xam ne yombul waaye nag sa maam ji nga xam ne mooy sëriñ tubaab moo la tànn moo la ko liggéeyloo moo la koy yoral ba lépp dina woyof ndaxte kat jiitu moo metti jiitu nag metti na waaye am na pay pay gi nga xam ni ku mës jiitu ku ne ba def ko nañ ko nañ la ko sante woon yàlla bu la loolu ump yàlla na sama boroom defal la ko muy pay goo xam ne gi fii mu yàgg lool ba nga xam ne bi di nga ci ko defee noo xam ne nii ni nga ko bëggale ak ni ko sëriñ bi bëggee mbokk taalibe yëpp ñoo ngi maase di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla kàttanal la di la ñaanal yàlla yàlla wéral la di la ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi nga nekk ci suñu kanam dinu jottali ndigali sëriñ bi ñu koy jëfee ni nga xamee ni bii moom la ko sëriñ bi bëggee ndax boo ñu ko woyofalul woon dina jafe ndaxte ñun sëriñ bi rek lañu am ndigalam rek la ñuy déglu waaye ndigal loo ñu indi di nga ci jàpp ba daanaka dañuy tiim rek waaye du ñu yëg du ñu yëg diisaay bi loolu lépp nag sa baax la ak bëgg Serigne Touba ak bëgg liggéeyal Serigne Touba ak bëgg euh, euh, euh, ndax yow li ñor lépp mooy ndamul ndamul Serigne Touba rek. kon bon maa ngi maase ak mbokk taalibe yi ndakaaru lépp ak yi nekk fépp sax di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko sama borom yàggal kàttanal ko yàlla may ko may ko may ko may ko mu def li mu bëgg a def mu defal ko Serigne Touba te ñu ànd koog moom ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë jëf en français. Oui, euh, nous rendons grâce à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à notre guide, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul. Et nous remercions le Khalif général des Mourides qui représente toute la communauté mouride, Cheikh Mohamedou Muntaha, et à travers lui, nous rendons toute la grâce divine de nous avoir permis d'écouter ses recommandations et de nous permettre d'avoir toute la possibilité de les remplir comme il se doit. Nous saluons au passage son représentant ici présent, Cheikh Mohamedoul Bachir, qui nous a amené les recommandations du Khalif et prions que Dieu lui donne une bonne santé, une très longue vie et l'encourageons sur sa démarche, sa démarche, sa dynamique permanente de veiller à la bonne marche de la communauté que nous partageons en commun, qui est la communauté mourite. Nous saluons au passage aussi tous les musulmans de tous bords, de toutes les confréries. et avons le plaisir d'accueillir avec beaucoup de plaisir les instructions émanant du Khalife général des Mourides qui consistent à préparer pour le Grand Magal de Touba comme à l'accoutumée une grande journée culturelle exceptionnellement cette année qui coïncide au premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinan. Auparavant, le khalife nous a aussi instruit de tout faire pour terminer les autres travaux qui viennent en complément de cette mosquée, qui est un des éléments de l'Institut de recherche islamique Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir l'Institut de recherche à savoir à travers le musée d'exposition des œuvres et des reliques de Cheikh Ahmadou Bamba et la finition de quelques travaux qui restent pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée. Et cette année exceptionnellement, Cheikh Mohamedoul Bachir nous a amené les instructions du Khalif sur le programme de la préparation du Grand Magal de Touba que nous faisons chaque année. Mais comme je l'ai dit tantôt, exceptionnellement, cette année, la préparation du Magal coïncide avec le premier anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinan. Et nous voulons, d'ailleurs dans un autre entretien certainement beaucoup plus élargi, avec toutes les composantes de ces manifestations, à savoir le courriel des deux rakas, des deux nuits de Dakar, et le courriel des deux rakas, qui euh, commémore la prière de Cheikh Hamadou Bamba sur l'océan, et l'ouverture de la grande mosquée pour en faire une grande semaine culturelle, certainement qui débutera entre le 19 du mois de septembre jusqu'au 28 qui coïncide avec l'ouverture de qui, qui coïncide avec l'anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinan. C'est ça ces instructions que Cheikh Mahamadou Bachir était venu nous transmettre et que j'ai eu l'honneur de vous annoncer. Je à la sortie de cette, de ce petit point de presse, nous allons nous, entacher, nous allons nous atteler à convoquer une très grande réunion avec tous les composants de cette organisation, à savoir, comme je l'ai licité tantôt, les autres daïras, plus les bonnes volontés que nous allons copter pour en faire en quelque sorte un très grand comité d'organisation. Et nous appelons toute la communauté musulmane, sans distinction, Mourid Tidjan Khadir, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Mahmoud bashir pour venir en communion avec nous, pour en faire cette année une très grande réussite et que tous les ans, Inch'Allah, que nous allons faire pour commémorer le premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinan. En résumé, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure en Wolof. et que je pense que vous serez avertis, vous de la presse, la date à laquelle nous allons convoquer cette très grande réunion pour commencer à préparer cette semaine culturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. الشيطان الرجيم بسم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 والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة ولقد رأى شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لا يصلونها يوم الدين وما هم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كتاب الفجار لفي سجين وما في وفرح المقربون إن وما وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا التقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا